saa waay dama vous di que pendant cette période là Mettez-vous dans la ci à Sarr ak avocat ndax gis j'étais seul seul seul seul seul sur le terrain Comment ma woo ma de presse l'a def sur combien de presse les chiens de Sonko nous mettre en mouvement en action nous c'est des journalistes que j'ai nommé comme Pape Léon, mais il y a site Ahmed Aïdara pour TV Mansour Diop bu TV Abdou pour Fall Abdou TV bu TV réactionnaire nga anti pouvoir pour yëg ma ci bandi boobu kooku dama fet ba nëpp kooku damay ragal bu demee bàmmeelam lan lay wax ci fen bii bàkkaar bi gën a rëy tey aji saar woote na nee aji saar daw na aji saar dof na aji saar xelam nekkatul ci moom dégg ngeen aji saar mi wax ak ñaan fi ñaan gërëm yi yim gërëm waa Kodas ak Me El Hadji waaye ba mu koy jógee du góor ñu ko seetal du jaam la yor ay mbokkam bu jur ay jaam moom jaam la mën na nekk nag bokk ci ñu baax mais mais dañ ni dañ ni man nga julli ci gëléem nàmp ci mbaam baalu ko turi bu dee doo jaam yow yaay julli ci gëléem nàmp ci mbaam say mbokk say jabar say doom say maam say baay say yow yaay baadoola mais baadoola mooy mooy salte ordure mais day fen di fen pour jox Sonko dëgg mais Sonko kenn mënu ko setal ponkal moo xam ni couvre-feu ñu ne bu kenn génn ngay génn bàyyi sa garde corps nëbbu leen yow ngay génn bàyyi sa chauffeur nëbbu ko ngay génn bàyyi borom robe rouge a xaw ma ci rouge nëbb ko yow nga dem fooy dem fuy lay raayee dem di wut ñu raay la ñëpp naan dama fale dama fale mu naa kay nga demoon naa waaye dama am métti xam ni sama ginnaaw depuis ma nekk xale ba léegi bu ma dalee damay sonn lool. bu ma dalee di wax dama ne mu nekk il laal maam ñu ne waaw mu ne kon damay dem faju ci guddi gi ku koy faj aji saar fu mu jàngee médecine loolu sonko ko bu yàpp soo ko na bàyyi di foyee xelu nit ñi waay soo ko bàyyi foyee xelu nit ñi yow bu yaram di métti depuis nga nekk xale nga yaram feebar bu garaaw xale bu jër naa bi faj yaram yow moo lay faj yow yaa mën a kàcc soo ko bàyyi kàcc waaye